booy luy problème bi. maa ngi nii rek taaw. luy problème bi. waaw problème baa ngi nii rek. adversaire yi lan lan lañ gis si Quench Boy. man moo ma jaaxal daal man maa ngi taxaw di xaar rek. maa ngi taxaw di xaar yaa guy gi ba léegi. ba nii taxul. mais boo amul guy gi da ngay bàyyi bëre wala du mu def bëre ba war a yéeg sa waay di tardé fi guy gi nee na pare na pour may ma saas kon man amatuma lu may wax su feewu ma kenn guy gi kese laay bëreen bu dul guy gi man du mais promoteur yi est-ce que sawar nañ ci Yacc Gouye pare na pour may message lan laay man toog nañ laay xaar. mais yow mënoo même la rose mi ma daan maa ngi bu baax moom sa am na combat mooy loolu. mais yow mënoo am man ma am combat. mais est-ce que nga woo promoteur yi pour ñu ñëw tëggal la combat boobu. non promoteur du ma leen woo xam nga daal du ma leen woo. waaw Gouye pare na pour ma bëre. kese du leneen. mais c'est du problème mu koppar tamit. non non du problème mu koppar du problème mu koppar. problème mu lan du problème mu wàcce fii la rek. xaaral ah, ma eh, la ba seer nag. yow baal ma ma wàcce rek. mais mbër bu ne loolu ngay ñaan yàlla seer. Ah, mais am na kese ba nga xamante ne boo ko laajee yow. waaye déggoo lii ma la man damay mobiliser war naa laaj kese bu seer. waaw xamante nañ. waaw mais yow jàmm si yow rek. Ah,